ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy abonnement yi seen diggante ak Aladji Malick TV am na solo bu baax a baax euh, yëglekaay yi dañu koy doore ak stade di ba ma nga déwr ci xatam mu njëkk nga xam ni mooy Boulaye Dia mi nga xam ne jóge na fële ca euh, Villarreal wara a dem fële nga xam ne mooy naa nga xam ne dem na ba àgg fa fi mu toll nii match ba tey na euh, man jeex na yëkkati na ab moyam fële nga xam ni mooy Salernitana mu nekk challenge boo xam ni war na koo mën a euh, relever moom mii di doomu sénégalais bi nga xam ni euh, daanaka dafa jóge ci kaw euh, avion wàcc ci ci kalando ka nga xam ne moo nekk Abdoulaye Diallo tamit moom it daanaka fi mu toll nii ay bagaasam mi ngi bëgg a xaw a compliqué bu baax a baax mook Saliou Ciss nga xam ni booba ak tey fi mu toll nii waxuma la maanaam dem ci club sax waaye laal bal sax fi mu toll nii moo njëkk doon Euh, ndax footballatul fi mu teel ni Saliou amul club ka nga xam ni moo nekk euh, Abdou Diallo moom it mi ngi ci guddi gu bët setagul ci diggante dem ak bañ a toog Cheikh Amadou Bamba Dieng tamit moom it fi mu toll nii euh, demagul fenn ndax it club yi nga xam ne bëgg nañ ko bari na lool nga xam ni daanaka mën nañ cee ràññeeku fële ca Allemagne ak fële ca Italie waaye nag ba léegi nii fi mu toll nii waxtaan waa goney Marseille yi ma ngay wéy di continuer bu nu sukkandikoo ci réew mi sport nga xam ne daanaka moo gëstu loolee nga xam ni daanaka bari na sénégalais yoo xam ne fii may wax ak yow euh, ñi ay jafe-jafe moo leen gën a euh, euh, guddi yi nu toll ndax daanaka ñàkk ak club ak manque temps de jeu boo xam ne Aliou Cissé boo amul chance loolu mën na koo jural ji xii di xaana loole tamit maanaam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax tanu gaaw dem làmbi faneen beneen Euh, yëglekaay ñëw na ci sunu ci làmb la ñëw muy record yéen kaay nga xam ne mooy bu euh, groupe Futurs Médias Tapha Tine Bombardier mi nga xam ne démb lañu ko tëgg nga xam ne démb euh, suñ toll nii kenn ku ci ne jox nan sa ki nga xam ne moo la fa teewaloon avance boo xam ne bu duun la nga reer ci sa ginaar yu baax a baax ba pare ñu xaatim fa ab contrat boo xam ne fi mu toll nii daanaka ah, contrat boobu moom kenn waxatul ay waxam ñoom ñaar seenu combat ah, taxaw na tafaatin mi nga xam ne daanaka dóor rek la ñu ko xamee ak Bombardier mi nga xam ne ah, bëre lañ ko xamee ak suul bukki suul bukki ci wàllu làmb bu ngeen ko déggee maanaam ma ne nu ne ci làmb kookee tamit ñu koy bàyyi xel bu baax a baax ci làmb ji mu laaj ja tamit Salarentina nga xam ne moom i dem na fa lool di nekk. lu am importance ci moom ndax dana fa euh, jógee di man a footballaat donte nag demul ci club bu mag boo xam ne manees na seet ak loxo waaye loolee tamit maanaam euh, duñ ko koy euh, nangul ndax fi mu toll nii dafa ne ci sit goo xam ne mooy wàcc goo xam ne wàcc na ko beneen journal di sunu làmb. la mu ñëw ci xëtam mu njëkk tafaatin mi leen doon wax taxaw na mu nekk ñaari combat yu mag yoo xam ne fi mu toll ni daanaka mooy jaaba jonge li nga xam ni mooy arène bi tafaatin taxaw na ka nga xam ne tamit mooy Ama Baldé ak sos moom Ah, taxaw na fi mu toll di làmb joo xam ne moom it làmb ju mag lay doon di làmb yoo xam ne fi mu toll nii daanaka saison bi làmb ji mi ngi bëgg a sàjjiwaat làmb ji mi ngi bëgg déggaat neex mi ngi bëgg a defaat neex loolee am na solo bu baax a baax nga xam ni ah, ñaari combat yooyu fi mu toll nii day tax ponkal yi ah, di fut di bëri tamit gone yi tamit war nañ leen cee mën boole bu ko defee ñoom ñuy doxal lu am solo ci wàllu làmb yëglekaay yu sport ci kanam tuuti.